asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi tey ñoo ngi fii ci daaru Rahman gu sëriñ seex Ndiaye xalifa Serigne Fallou Ndiaye Dabaye nekk fii ci ZAC bi bu ngeen gisee image yi ni sunu ginnaaw xam ni bërëb boobu ngeen di jàkkaarloog néegub yàlla la muy jumaa ju mag joo xam ne sëriñ bi mi ngi koy liggéey fii ci bërëb bi dara waralu ko rek lu dul gën a dundal lislaam waaye gën a yaatal ak wasaare liggéeyu maam Serigne Mor Ndiaye Dabaye ak baayam bu baax ba Serigne Fallou Ndiaye bu ngeen gisee pàkk bi ni mu mel ngeen xam ne fii ab àll la ngeen xam ne kon jaamu yàlla rek moo tax sëñ bi ñëw fi tey nag dañoo ñëw ngir càmbar liggéey bi waaye woote waat mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi soññaat leen bu baax a baax a baax ci liggéeyu jumaa ji ndax ku gis lii sunu ginnaaw gis image yi da nga xam ne lii du liggéey bu ndaw xaalis bu baree bari moo ko war a def ku fekke woon première pause première pierre bi tamit a ah, nga xoolaat image bi xool fi jumaa yi toll nga xam ne liggéey bi mi ngi dox bu baax a baax dañ koo deful nag liggéey taf yëngal ndax sëriñ bi dafa wax ni yàlla boo koy jox da ngay seet li nga gën a baaxle nga jox ko ko ba tax na képp koo xam ne ab jullit nga rek sëriñ bi mi ngi lay woo ci liggéey bu baax ndax lii liggéey bu lislaam la te bu ñu nee dañuy liggéeyal lislaam képp kuy jullit rek am nga ci cër moo tax sëñ bi di leen soññ bu baax a baax rawatina nag taalib yi nga xam ne nag seen buntu Serigne Touba mooy Serigne Mor Ndiaye Dabaye muy ay taalibey boppam sëriñ bi nee na mi ngi leen di waat bu baaxa a baax a baax ci liggéey bi. ñu bëgg a indi tuuti ay leeral rek ci liggéey bi li nga xam ne moom lañu ko composé ndax wax naa leen ni ku gis liggéey bi xam ne nekkut liggéey bu ndaw. bu dee lu jëm ci wàllu fenêtre yi tamit ah, jumaa ji am na douze fenêtre maanaam fukki fenêtre ak ñaar moom lañ ko liggéeye pour maanaam jumaa ji ban di tàng. bu dee li jëm ci yaatuwaayu jumaa ji mi ngi nekk 40 mètres moom mooy yaatuwaayu jumaa ji bu dee couloir yi nga xam ne moo wër aventure bi boobu mi ngi mi ngi mi ngi nekk 35 mètres 35 mètres mooy couloir yi jumaa ji juróomi soorool lay doon ñeenti soorool yu ndaw yi bu ci nekk dana guddee 35 mètres ci kaw bu dee soorool bu mag bi nga xam ne mooy ne ci digg bi kooku 75 mètres lay doon 75 mètres lay guddee ci kaw bu dee autoroute jumaa ji 5 la guddaayu jumaa ji 5 mètres la. waaye jumaa ji dañ ko programme mu nekk terrasse nga xam ne dina dina mën a am ñu jullee ci kaw ndax léeg-léeg mbooloo mi bari ba ñëpp duñ xajandoo ci ci biir bu boobaa dina am ñu mën a jullee ci kaw muy espace yoo xam ne espace réserve la waaye ñu ñu ñu ko nag ak fer bu baax euh, ndax euh, euh, bu ñu xoolee poto yi nga xam ne moo wër jumaa ji lépp lépp cinquante poto la mooy poto yi nga xam ne moo wër jumaa ji bu dee poto yi nekk ci biir nga xam ne mooy taawu jumaa ji kooku seize poto la. bu dee beton bi nga xam ne tamit moom ko moom lañ ko liggéeyee béton noir lañu lañu la ñu liggéeyee jumaa ji fer bi tamit bokk na ci fer yi qualité fer bi ñu ko liggéeyee am na fer 16 am na fer 14 am na fer 12 am na fer 10 am na fer 16 loolu mooy li nga xam ne moom la ñu composé jumaa ji loolu nag bu ngeen ko déggee c'est-à-dire ni mooy ni liggéey bi nekkul liggéey bu ndaw li ma ko waxoon ci njëlbeen ngi nekkut liggéey boo xam ne liggéeyu taf yëngal lay doon sëriñ bi tamit programme na waale ne benn teen boo xam ne moo nekk ci buntu jumaa ji teen boobu tamit mi ngi gudd guddee guddaay bi mi ngi toll ci vingt cinq mètres sëriñ bi gas na ko ba ndox mi ball waaw kooku tamit ñu ne danañ leen ko leeral bokk na ci li ñu bëgg leeralaat tamit sëriñ bi ne nañ ko leeralaale mooy euh, beneen leneen loo xam ne beneen projet boo xam ne mi koy nësër muy daara ndax ku ne xam na ni bu ñu nee euh, sëriñ Cheikh Ndiaye daabaay léppam ci lislaam la lislaam nag bu ñu ko waxee dara du ci génn jàng ak jàngale ba tax na euh, fas yéene na fi defar daara alxuraan ju ju mag yoo xam ne dana am ci biir internat internat lay doon daara ji internat lay doon waaye dina am ci biir euh, bërëbu fajukaay muy euh, dispensaire dinañ fa defaale tamit bibliothèque loolu tamit sëriñ bi nee na woon ñu leeralaale ko moo tax nag ñu ñu ñu ci woo jullit yëpp di ci woo bokki taalibe yi ni ma ko waxee ci njëlbeen gi képp koo xam ne daal lislaam moo tax ngay sol sa dàll sëriñ bi nee na mi ngi woo ci liggéey bu baax di la soññ bu baax a baax tey nag ñu àndoon ak seen euh, télévision bu mag bi euh, di site internet ñu koy wax Alfayda TV ñu ñëwoon fii pour indi leeral yi jën jërëjëf.